man de tey dama woo ñëw pour wax ci cadre Mère Dial man daal Mère Dial Mère Dial daal jaaxal na ma man Mère Dial gis naa goro yu mel ni moom mais dañuy nëbb sax seen far mais moom faram nëbb ko daf ko fesal moom dafa fesal carrément ne ma rekk la làll laa bëgg moom ni muy doxale du parce que moom ni muy def nii bëggul doomam day tax Cheikh du am jàmm te mu ngi gas loo xamante ne xaw mu ngi sombi loo xamante ne man xaw ma fa la ko war a mën a naani parce que Marème mi ma gis nii parewul pour génn ci sëy bi te Cheikh mi ma gis nii parewul pour fase Marème kon donc Mère te moo rafetal rekk te taaj leen ñoom ñaar ñëpp mu wax leen li nekk jamale leen moo gën li muy def nii li muy def nii moom dara rafetu si du lenn lu si rafet baaxul santul yàlla rafetu si billaay man bu ma koy seetaan damay mer ni muy def Mariam daf may mer dama ci gis nekk sama bopp parce que du lépp nekk lañ mun a wax mais yenn yi dafa ñaaw te dafa salte ay góor soo leen yoree te ñoom ñëpp nga jur seen jëkkër danga leen di yamaale mais ni muy def nii moom rafetul Mariam nekk na góor-góor lu muñ te jàpp jëkkëram tey xaritam bi li mu ko wax kontaan naa si torop torop torop torop li mu nekk yow occupé Cheikh rek li mu ko waxee sama xol dafa sedd ñëpp buñ lay xeex te sa jëkkër fonk la yërëm la bëgg la rekk santal yàlla te Marème gis naa ne ñu ngi koy xeex mais Cheikh bëgg na ko parfois nag du ñàkk xolam dina sott mu dégg ay wax yoo xamante ne day ñëw dal ci kaw Marème mais fekk Marème da ko wax mais suñ waxtaaneatee ñoom ñaar rek après ñu juboo na fonk Cheikh daal man daal Marème li ma koy digal li ko xaritam bare conseil laa koy conseillé na jàpp Cheikh fonk Cheikh di woy ci ndigalu Cheikh di def Cheikh li li mu bëgg su ko defee rek du am benn problème si sëyam te Maître Dial moom muy du muy dundeex moom nii ma mu dundeex moom tey ñi na ko continuer su yàggee xëy na moom dina am rusukaay bàyyi Marème moom tey li mu wax Marème si moom la war a nekk chaque jour ko jafee mu woo Marème toroxal ko xas ko te chaque jour Marème si la gën a mën a ñàkk jom pour set ko moom moo war a rus te xam ne Marème du ko bon bëgg na sëy nañ ko jàppale mu sëy ah la tamit mu may commencé soof de lan lay nekk fii di siisu boobu tey moom mare mu ngi woote jàll man commencement bi laal dama ko yërëma mais instant yërëmatuma ko parce que mare mu ngi woote jàmm moom moo bañ ne du woote jàmm wujje du dara kii ñëw na bu fekkoon ko dafa ñëw mayu ko jàmm sax man d'accord naa mu defante moom ba mu saf mais dafa ñëw may na ko jàmm na ko may jàmm ah waa asalaamaaleykum mbokk yi waaye yéen a ngi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si ne laaj si jàmm ak si jaabi yaram di yàlla suñu sama kàddu fekk ak salaam série bi nag naa ko neex trop car allah waaye laala lay wax laala na góorgóorlu ànd ak rakkam doog am mujj noonu moo mel noonu il faut mu am fët fët waaye mu góor ki yee tuuti war naa mën a ànd ak Marème parce que Marème muy def loolu lépp dafa bëgg ñu juboo te moom ginnaaw dem na nettali te lim nettali bu dëgg ba Cheikh Diagne xam na ko lépp dina leer mais man fi ni ma ko gisee moom maire bi moo leen naa jaxase ñoom ñaar parce que maire bi bu uufee mareem comme ni mu uufee laala yàgg-yàgg laala de mujj boof rek ñoom ñaan ñu ànd ndax wax dëgg yàlla moom wujjatu dara bokk wërsëg la ndax da ngay gis ay xale yi ndaw dañuy wujjatu tee dañuy jubboo ndax moom il faut wujje moom doon na loo xam ne mooy loolu boo moom kiyee tuuti daal ku si nekk daal da ngay jàppe sa moroom sa xel sam xel nga jàppe ko sa moroom rek sa jikko daal nga jàppe ko sa moroom mu ko defee di ngeen ànd mais Cheikh Diagne moom tam na jubal daal am na noo bu ko ne doxalee ay jabaram nan ànd mais am na noo bu Cheikh bu ne taxawee rek ñoom ñaar duñ juboo ndax ku ne da ngay gis sa bopp ni naa def nii def nii mais laala daal moom yàlla moom mel na ni moo bëggul jàmm mais nag laala ni ma ko gisee tuuti ci kanam mel na ni dina juboo incha allah bu ko meer bi rek bàyyee jërë ngeen jëf yal na yàlla dooli jàmm salaamaaleykum yéen waa groupe bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di jéggalu bu baax numéro bi maa ngi ko jëlee ci internet lii moom am na solo macha allah waaye tey maa ngi wax ci Marème Marème comportement wu ci film bi rôle bi daf ma neex parce que moom day wone sincérité am ni mel nëbbu ko mi yorewul jikkoy hypocrite hypocrite mooy koo xamante ne du wane jikkoom ñëpp xam ko comme laa lu muy def day def ci suuf di wan jëkkër ji ne dafa baax te loolu amul solo nit di nga mel ci début bi wane ko Marème na noonu la def dafa wane boppam wane dëggal boppam macha allah yàlla moom boo dëggalee sa bopp rek dala ci mbay ndam te moom dina am ndam. parce que soo xoolee boobu ba léegi plan yu ñuy def yàlla may ko ci ndam nit daal da ngay sincère te dëggal sa bopp rek jikko bi nga am bu ko nëbb wane ko rek te loolu la Marème def man moo tax mu neex ma mais jaar moom boo ëttuwul sax Marème moo koy réglé comme te Jalika ni mu ko sonalee woon Marème moom dina ko réglé faj ko te yaakaar naa sax Marème boo ëttuwul dina proposé Cheikh Diagne ne ko yóbbu ma sa nekk foofu. waaw salaamaaleykum lu xalaat TV wax waaw tey de moom dama bëggoon a participer ci euh, épisode bi tey waaye xanaa rek di wax ci diggante yaayu Cheikh ak Lalla ak Marème bon daal li ma gën li nga xam ne moom ma gën a marqué xam ne métti na ma trop. mooy que yaayu Cheikh ak euh, Lalla ni ñuy sewelee Marème quoi xam nga waaw parce que Marème borom baax la quoi xolom moo rafet quoi xolom moo yaatu quoi moom mu ngi def le tout maanaam pour xacc gars yi ci boppam mais gars yi daal gis naa ni ñu ko taxawoo baaxul quoi parce que di ko wàññeek affaire yooyu di ko xam nga maire bi di ko gën a léeg Lalla loolu du yoon daal. waaw su ma sañoon daal moom day boole ñaan yëpp xam ne ay doom doom doom mooy seen borom kër mu respecté leen waaw respecté leen daal xam nga yemale ñoom ñaan yëpp waaw mais daal moom séparation bi muy def si digg seen digg entre ñoom seen diggante ñoom daal moom maa rafetlu ma ko waaw maa ngi jaar ñëpp maa ngi jaar ñëpp bàyyi faal bi. leen def maa leen baax a seen trop neex na trop Ah, Maram Ndiaye wax dëgg yàlla mais parce que moom neex na ma trop neex na ma trop ndax jigéen bu ñàkk joom la jigéen dafay ñàkk jom wax na dëgg day bëri feem noonu la de nañ nañ ngoy jëkkëram bu baax a baax a baax a baax te xam ne awa ah, ba ëppalewu ko dara la ko si ëppalewul du ko mënu ko siis ba xam ne ma yaakaar naa ne ëppalewu ko dara daal na na doxee côté bu doxee côté waaye nag góor la vraiment na dafa war a dëkk tëddee jaaxanaay après ku digg mu féetee côté loolu laa waaye moom dafa jël naan la rek teg ko si côté rek dafa jéng côté bu war a def loolu jalikat bi noonu la ko defoon jalika rek la mujjoon si kër gi far jalika dem na yaatal ko kër gi moom naa la waaye moom daa xëy jalika tamit keneen ñëwaat na war woon a doxale loolu war woon a doxale loolu waaye mu moom wax dëgg vraiment mi ngi def ay wari garab moom mi ngi dikk di ko jox ay teraanga bu koy delloo bu ko delloowaat teraanga loolu waru ko def da war a sagal tuuti te xam na yàggam yàgg dootul mu jëli yàgg loolu da ko war a sagal wax dëgg waaye mara moom ñàkk jom la def moom wax dëgg noonu la jigéen de ñàkk jom wax dëgg de si côté boobu moom macha allah neex na ma fi trop wax dëgg yàlla seex tamit moom bëgg na ko trop bëgg na ko waaye xelam mooy bëgg a yàqu waaye nag xelam mi la ko defaraat bu baax a baax a baax bu mu ko yàq mukk mukk neex na wax dëgg yàlla waa ndax jëkkër ànd naag beneen jigéen moom it ànd naag beneen góor mais parce que tamit loolu foofu moom it neex na fi trop neex na waa rek yi moom it na waaye nag moom Moustapha mais parce que du ma ko bàyyee waa ndax da fa waroon tey ndànk ndànk am na pexe rek la te pexe yooyu yaakaar naa ne ah bi ko lëjee demee parce que dana xam dana xam daal fii pexe dana xam ne ba xam la wala du pexe. mais parce que daal kii bi seet bi daal neex na ma trop neex na ma trop waaye rek nag rek vraiment moom boppam tourné doo trop waaye moom moo ko def boppam ci commencement bi ba que Moustapha fekkee si bureau bi da ko da ko da ko ñoon def da ko yëpp war woon a li mu moo tax waaye ka paa fi ka paa bi évité yëpp mais kon Moustapha dana tee dana tee waaye da koo réer waaw mais parce que daal rek daal foofu la xaw a yàqee tuuti foofu la xaw a yàqee waaye mais nañ teera xam naa ne Moustapha na teera Moustapha moom wax dëgg vraiment moom neex na ma trop neex na ma trop waaye ñaar ñu bëggante rek mooy loolu waaw maa ngi jégalu dama si waay yow moom trop neex na ma trop moom boo xaaree wiiri wiiri teguñu wiiri wiiri rek moom ci kabara seetaane wiiri wiiri moom it neex na trop waaye mais parce que dangay dem di xaar di xaar ba sa yaakaar jëpp tas <laughs> yéen nag moom seen seet moom dëgg bu leen ko waree teg nag teg ci normal nag moom la ñuy seet njëkk a ci YouTube wax dëgg mais parce que neex na ma trop <laughs> neex na ma trop wax dëgg. <laughs> maa ngi leen di wax ni sëñ la mm, def am na solo neex na trop macha allah yal na leen yàlla yokk ca kaw ca kanam rek mm-hmm. di wax ci seen série maîtresse bi rek tey moom neex na trop maanaam toujours dama koy suivre ci bi duma duma ko tardé moom dëgg yàlla wax ni Marème moom Marème daal gën daal. ñaari loolu yëpp magam nee na mais ma daal moom moom daal mooy loolu daal amatut bëgg naa ñaari bu mel nii daal man tamit di wax ne ku ci mel ni joor li mu def dina dem dem ba bëri ci ko. waaye Jalika est-ce que yaakaaram du chaque jour rek lay tas ndax bis bu demee ba xamante ne si ne kooku noonu euh, xaritam boobu tamit daan génn papaam est-ce que du réagir tamit comme noonu rek trahison ba te du duggaat foofu mais en tout cas daal neex na daal neex na daal trop tam série moom allah dañuy def neex TV si loolu leen nekk am jàmm bu ah kontaan nañ trop ci seen série bi trop parce que réalité yi ñuy dund ci suñ dëkk bi moom kese ngeen fi def nag on peut dire parce que Marème ak Lalla seen relation ni mu demee xam ngeen ni bëri na ci dëkk bi parce que da ngay gis ku ñu takkal wujju mu daal di jël wujjam bi sotti ko asib wala ndox bu tàng yi tout mais Lalla moom je peux dire que ni daa waroon a uuf euh, Marème uuf ko comme rakkam parce que loolu mooy rôle lu aawo waaw. en tout cas kontaan nañ torop macha allah kontaan nañ torop torop torop en même temps aussi Jalika aussi du nag du courage Marème aussi du courage yàlla baax na série bi moom neex na trop neex na trop moom macha allah. salaamaaleykum na ngeen def ci li ngeen ne bàyyi nañ ci jaamu ah, man numéro bi dama doon xool YouTube daal koy gis ñu commentaire waaw wax dëgg yàlla série bu neex wax dëgg yàlla neex na trop man moom Marème dama koo faan parce que dafa am fulla ci boppam ba tamit ni muy def te koo gëm euh, fonk na jëkkëram caaxaanewu ko te sëy xam naa li ko ci dugal génnewu ko ci te dëggu na teg ci te nit ki boo dëggoo rek lu ne mën nga koo am mais laala day tricher laala ni goro bi tricher noonu lay tricher te gorom ñu ngi ko eh, bëgg a yàqal lu bari nag gaa bëgg na ko mais lim koy defloo nii dana ko yàqal dèjà ñu ngi ni bett nañ leen te gi fa yàlla moom war naa xoolaat taxawaayam te li ma gis man mooy mu jàmmook kii mareem moo gën foofu ni muy def ak moom parce que mareem moom sëy bi kafew ko kafew ko tayit réewew ko moo tax daal bay ba mu def nànk te daal te xam ne Marème mii daa ñëw pour sëy ñëwul pour caaxaan laala na bu toppee gorom boobu yaakaar naa ne moom mooy dem bàyyi Marème ci sëy bi ndax Marème sëy bi taxew ko waa asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar bàyyi yéen a ngi am jàmm alhamdulilah maa di nuyu di épisode <laughs> bi moom wàcc na ba zéro barki Serigne no non <sighs> Lalla day jéem ma mat saytaane mais dina xam ne Marème Marème rek Marème duy fo man daal Marème laa gëm waaye goro bi tamit taxul ñu naan goro bu baax ndaxte boo amee a ñaari goro danga leen a war a yamare waaye Lalla tamit mi ngi wàcc personnalité am te li muy def tamit ginnaaw rek la koy jëmale mais du ko jëmale kanam. parce que lii moom yaq sa place ak yàq sa diggante ak sa jëkkër parce que da fonk te daf leen fii personnalité fi mu toll nii wàcc na bu baax a baax a baax kenn nag du du du laal kenn nag du mareem mareem daal moom moom moom bu dégg dëgg li def mi ngi koy teg ci temps macha allah moom nu jëkkëram bëggee rek lay xool mais laal la booy xool léegi talatu sax seex ndax mareem mareem mi ngi koy ëpp demin de man daal bëgguma li ci jeeg man bugguma lii ci jeeg. lala moom defoon naa day arrêté mais pour lii mu def moom mooy loolu waaye Marème moom fi mu teg tànkam moom du ko rëcc kanjal ki ak biram nag moom mm, biram moom dafa tardé moom moom dafa tardé jalikaa ngi dund lu neex macha allah waaye moom dafa bàyyi ba jaan bi rëcc ko mu bëgg a topp ci lii bi daw loolu tamit mënta nekk biram neex nga ma trop biram neex nga ma trop wante nag joor moom mooy loolu moom dafa yàq deru jigéen ñi. waaye nag lépp luñ ñu théâtre tamit am na lii maîtresse di def nii non lu am la lépp am lépp am surtout goro bi li muy joué nii ak lal la surtout biram ak ki kii nu ti joor ak rakki tamit ndeysaan li muy dund lépp am waaye daal yéen lu xew TV daal moom amuñu seen fay yéen waa lu xew TV ci kaw ci kanam yéen a ngi bégal askan wi di ñaa ngi joxe seen xalaat baax na ba beneen yoon. wàllu xew TV maa ngi leen di nuyu di rafetlu série bi neex na trop macha allah wax dëgg yàlla tey moom tim ñaareel yi kontaan nañu bég nañu parce que suñu der sat ndax Cheikh moom bu dégluwul woon enregistrement bi rekk kon moom du baax ci ñun waaye nag yàlla baax na laal na muñ tëggam yàlla te xam ne ñun rek ku dugg ci ñun doo ci génnee noonu. ndax saf nañ làmmiñ mën nga noo tontu te xam nañ li ñuy def te duñ tooñ waa meer bi tamit nag bay boo rek mu jéem a bëgg mareem dëgg neexul day sonn rek parce que mareem moo xam naa ni du koy arrêté du koy déranger te du koy daw ndax doon nu ko xam naa ne ñun ñaareel yi doon ñu daw de waaye boo rek mu jéem a assumé te taxaw laala na ñeme tamit dëgër muy ragal. lu muy ragal na taxaw. asalaamaaleykum waa lu xew TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay waaw seetaan na série bi di kontaan rek di kontaan rek ci épisode bi di ci am lu ma neex très bien tey moom xoola dama kontaan Jalika Jalika tey dama kontaan ci moom. Jalika mu def tey neex na ma tey nu mu dundee neex na ma macha allah yal na ko yàlla may force rek ba mu dundee kaak biram ba mu neex ba stress du ko téye joor nag gàcce gu mu am du ko nettali kenn kontaan naa si waaye tamit lalla ak tàntaam macha allah mention spéciale mareem nag moom day tooñ te day tooñ nit moom bu la dul tooñ rek bul ko tooñ mareem li mu def nii man ànduma si ay nit buñ la jéppee ba boolewul la sa dara dangay régler sa yàpp yaram waaye mareem moom képp kuy ñàkk jomb ba ñëw ci moom rekk dinga waññeeku dégg nga am na yoo xam ne tamit maire bi mënoon na ko def te du ko wax xëy na tey fi tey Cheikh Cheikh bett na ko léegi lu lu mu waxati Cheikh du ko gëm lu mu du ko gëm man daal tey épisode bi lu ma ci gën a neex mooy ni kii doxalee tey Jalika Jalika dóor na biram kat appi te sixième appui baa ngi ñëw Jalika di courage merci beaucoup. asalaamaaleykum wàllu xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di kontaan nit ci eh, épisode 33 bi am 38 du moins seetaan nañ ko bu baax man ba tey ci Lalla lay dalaat encore Lalla dama laa bëgg dama laa sopp bëgg la def sama référence bëgg laa nawloo mais ci tànk bi ngay dox nii déedéet. duma la nawloo duma la def référence waaw parce que yaa ngi tas diggante yaa ngi tas sëy sëy fekkee fu ñu koy takkee moo gën a yomb fekkee fu ñu koy tasee gor bu baax ku baax du nangu mukk fekkee fu ñuy tasee sëy waaw kii dem na dikk na sa wujj la toogal sa place gérer sa sëy mu jeex takk li am am na ba pare te nga xam ne sa goro bi baaxul ndax bu baaxoon du doon xatal jalika ba jalika jóg dem te jalika guddil na ko ba jëkkal na ko jalika desalu ko dara defal na ko lu nekk mais xatal na kooku ba mu dem xamoon nga ci dara yaa ngi dégg léegi rek sa jëkka takk na kii mu doon lu metti lool kenn ku ne ñaanu ko yàlla mais mu doon lu metti lool am na ba pare mënoo ci dara toogal sa place gérer sa sëy gérer li nga war a gérer nga bàyyi kooku gérer lu muy gérer sa jëkkër nee na day sëy si si biir kër gi nga bàyyi ko mu ñëw toog si biir ki si biir kër gi mu sëy nga nekk sa wet mu nekk nga nekk sa sa place mu nekk place du am benn dérangement nit bu baax day am lu muy bañ day am lu muy lu muy seetlu waaw naan bu ma seetul woon ci lii nar na demee neneen nga seet ci loolu lalla bëgg naa torop sama biir xol nag mais lii moom ànduma ci ak yow tey ànduma ci ak yow suba rakki nag toppal man su ma sañoon toppal sa yaay nga taxaw di déglu dañu ne ku déglu ku ku ku ku ku déglu dégg déglul nga dégg li nga war a dégg jalika nag comme ni nga ko waxee il nga jóg góorgóorlu pour sa bopp loolu nga war a def jógal góorgóorlu ci sa bopp ñii bu ñu la teree happiness happil ba mu neex la waaw Cheikh takkan gi nu mu tudd eh, biram takk na jabaram dundal sa dundal kii dund bu séeréer bu la bëggee takk mu takk la waaw aduna bi moom nii la rek day metti tey tey day neex suba mu metti nii rekk la sa yaay nag moo ngi doon wax bu xamoon lu mu defoon du ko doon def kenn xamul lu mu def mais kenn ku ne aussi da nga war a sóoraale suba du añ du reer mais lu jar a sóoraale la moo tey nit looy def lu ne na nga ci xool xoolaatat bu baax balaa ngay def épisode bi neex na neex na trop sax mais daal man li may waxaat ba tey lan la moom d'accord ma ci yow tey d'accord ma ci yow suba comportement bi neexuma tey neexuma suba waaw bëgg naa la nag sama xol dara mu mënu ci dañ mais comportement bi moom bëgguma ko. salaamaaleykum yéen waa Série Maîtresse maa ngi leen nuyu bu baax di commentaire ci. maîtresse la waaw tey moom dama kontaan ci Jalika kontaan naa trop si moom parce que ni joor ñëwee rek mu ne ko soo ñëwaatee rek soo agsee rek dinaa toroxal ci sa digg nawle am am ci fulaak faydaam dama kontaan ci moom daal en plus li wax yaayam ne ko béywoo ngeen wax ma li ngeen may wax ma xam ndax bëggatuma dund naqaar Jalika moom yërëm naa ko trop commencement ba fin mu nat ko dund problème te moom problème dafa jeexagul ba tey ndax yaay muy naan ko su ma xamoon ne su ma su ma defee nii ngay nii ngay ci yow li ma def ci yow lay këpp kon duma kon duma ko def kon yaayam am na lu mu def beneen bi timit aussi mi ngi naan xaritam bi baa dooma trahir te yëgugul la xew ne xaritam boobu moom ak papaam amoon nañ relation kon Jalika man série bi moom da ko nar dund problème ba mu jeex man daal bëgg naa Jalika mu dund bànneex tuuti ci série bi même bu tuuti sax mu dund ko daal ndax gaynam boobu noonu bëgg na ko trop mais Jalika moom pareegul pour nekk ak moom loolu mooy problème bi ndax fi mu jaar moo metti ah maa ñëw na dem ci Marème ah Marème Diagne kontaan nañ ci yow trop sax waaw noonu la. nit bu lay teg diil danga koy wan ne ko yow yëgoo li xew parce que man damaa xamul goro yi léegi yan façon goro lañ ndax goro day xaali yoon wi gis ay goro ñuy ñuy dëngoo mu ñëw taaj leen di leen juboole mais goro buy séparé am ku muy ku muy jël ak ku muy bàyyi ba ciy tegante diil mu jaral ko mu tudd ci lalu hôpital nga xam ne ñi ci tëdd sax ñi ngi ñaan yàlla jóge faat jàmm ndax hôpital ak comportement am moom mu jaral ko mu dem tëdd hôpital ndax dil ah man mère Diagne jaaxal na ma man en tout cas daal série bi neex na torop neex na torop maa ngi bu baax lu ci dëng rek jàppale na dama mënta wax lu jub rek xam leen ne moom mooy loolu daal. salaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié maa ngi leen di nuyu leen ziar ah di participer nag eh, ci bootaay bi ah tey moom neex na macha allah Marème Marème Fana la barke Serigne Touba. mareem xam na lépp teg ci tànkam ñëw jommal leen bañ commi mësuma gis lii non kër goo dem am na am na njombentaan mais meer jaañ mii meer jaañ toj na fi nu fi tay barke yonent bi nga teg sa tànk foofu la bu ko musa teggi barke sëriñ paree nag di wax ci hmm, joor ak jalika jalika su doon may yow nga jéem a fàtte biram te nga nekk ak xale bu góor boobu ndax kooku laa yaakaar ke ni moo la moo la bëgg waaye d'une part nag góor moom mënoo ko bëgg tey bàyyi fàtte ko tey loolu mënoo nekk il fallait que nga nekk di essayer di essayer ba mu génn si yow mais daal doy na waar doy na waar trop trop trop trop kii di du xarit kii du xarit yéen ñaar moom seen séquence man dama koy yàkkamti parce que dafay mel ni sama sama vue lañ jël di ko par ko publier si tele bi wallaahi azim li ngeen joué nii moo nekk reyal ci dëkk bi te man loolu daf ma dal moo tax man maa ngi nii ba tey ñemeem wax sama xarit ne ko ñemeem wax sama xarit ne ko maa génn ak diw ndax su ma ko ko waxee sama xarit daf may ba lii dafa nekk loo xamante ne moo nekk ci dëkk bi. asalaamaaleykum. waaw lu xaw tey na ngeen def sa yooyu yéen si waaw dama bëggoon joxe sama contribution ci épisode 38 bi ñu ko seetaanee ba pare daal am na ay jàngat yu ma si jàngat quoi jàngat bi si njëkk mooy joor euh, joor moom bi mu ñëwee gis euh, Jalika euh, automatiquement rek foofu. dafa waroon jéem mais waru toog naan da koy jéem a feeñu di ñëw di ko jéem a di triste parce que actuellement nii mënul wax lu dugg ci nopp Jalika show show bi nii Jalika mere na ko moo xam na loolu kon bu mu jéem sax di ko jege na jéem a kay eh, def ndànk ba ci kanam xëy na avec le temps mun na dem ba Jalika baal ko parce que bu xoolee fi ñu jaar ñoom ñaar bon mun na dem ba comprendre ko baal ko quoi mais nii nii nii nii nii nii moom Jalika ko supporter waaw. moom xam na loolu sax waaw bi ci des mooy biram biram mi ngi bëgg a ñàkk fayda nag mais biram yow nan ngay wàcce nan ngay wàccee jigéen ba pare aussi ñàkk nga ko yow lan bu dee bu juree say doom nag waa ji defaloo dara ndaw si moom bëggatul la kii la bëgg mooy bul wax ak moom amal sa amal sa amal sa personnalité yow yaa ngi yaa ngi refaire sa vie yow yaa ngi dem jël xaritam yow li nga def sax moo gën a yow xaritu jël sa jabar nga jël sa jabar aussi am na droit aussi moom it wut ko neex yow waa ji loo ko wax ko waa ji defuloo dara jotewu leen dara nit da ngay am personnalité da ngay am fulla am sa fayda waaw yow waa ji da lay sax yëpp après parce que yow lan la quest a ah non yow kay da nga war góorgóorlu ñu bañ la reetaan yàgg ndaw soos parce que dugg nga ci ba pare. waaw ñu bañ la reetaan parce que actuellement bon Jalika bu ngeen moytu na leen reetaan parce que yow moom di nga boo moytu da ngay toroxal jigéen yow waaw yow moom joor moo na gën a sonn sax Jalika boo changé wu joor mooy gën a sonn parce que actuellement liggéeyuloo loo ma loo koy yoree day na waar. en ce qui concerne nag Lalla moom moom meeram boobu xaw ma dañuy complot xaw yi ñuy def man Lalla xàmmeetuma la ko franchement Lalla xàmmeetuma la. lalla mu baaxoon mi lalla mu daan wax jëkkër ji aljana lalla mooy tëral tey ay wax yu dul dëgg di jéem a complot ak ay maire yoo xam ne yi sa waay dañu sëy ba tas dañu sëy ba màgget léegi bëgg a yàq seen sëy doom yi quoi ah waaye yow Cheikh Diagne heureusement bi nga yëgee lu xaw parce que tam Marème Marème daal vraiment defu leen dara Marème yow yaa dugg ci laay fam bu fa takk ko Marème topp la woon yow yaa ko toppoon léegi nag yow xel nga protéger Marème sa jabar ak sa yaay xam nga lii dañuy complot sa jabar pour tas ko bu kon nangu waajur waajur la jox ko respect bu bu war yëpp waaye nag am na yoo xam ne yii moom bul nangu mu mu mu def mu mu defal mu def la ko waaw parce que da am àq sa waajur mooy na ko defal li mu bëgg na ko may respect na ko dimbali nangu ko yërëm na kii ki mais nag bu la na def loolu loo xam ne lii baaxul bul bul nangu te mareem lu mu nar baaxul sa yaay lu mu nar baaxul Marème moom na góorgóorlu jéem a gagné confiance jëkkëram gën a góorgóorlu rek te xam ni yéene néeg la borom a cee fanaan bu mu yéene mukk bu mu yéene mukk lu bon moom daal na def la muy def rek bu yàgg yàgg dëgg mooy mujj wasalaam. sama gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di bëggee ñëpp waaw di kontaan lool si intervention yi rafet na lool macha allah waa ñu leen di nuyu ñëpp di leen ziar. Eh, tey nag wax dëgg yàlla eh, si Marème rek laa bëggoon a wax ndax dama kontaan ci moom macha allah waaw ndax eh, rôle bi mu joué daal wax dëgg yàlla neex na ma torop neex na ma torop macha allah waaw kontaan naa si moom lool waaw parce que daal jigéen day ñàkk jom waaw jigéen jigéen day ñàkk jom waaw lim def nii nag xam naa ñu bëri dinañ ne Marème mi amul fula mais ku am fula la am na fula waaw. am na fulla parce que ñii dañ koy tegal ay ndëgg sërëx mais bu mu sa daanu bu mu sa daanu bu mu leen si fekk si ni muy doxal nii man kontaan naa si waaw ni muy doxal nii nii la te du mi ngi nii yaay ji ne yaay ji dina tas sëy bi far seex dugg ci hmm? waaw liñ naan euh, lu ne fànk kenn du ko jeex nañ nañ dem rek yàgg ba wut dara yàgg boobu dara ni muy def nii kontaan naa si man de Marème moom wax dëgg yàlla kontaan naa si moom laala nag moom wax dëgg yàlla neexoon na ma si commencement film bi mais fintal nii moom wax dëgg yàlla moom rôle bi li muy génn que daal wax dëgg yàlla même nit ki sa wujju ah bu ngeen di nekk si xay nekk si ay ba yàgg mu ñëw ne la damaa bëgg ñu nekk si jàmm ak lu métti métti yow war nga ko sooy mën a fekk si parce que li am na am na ba pare yow moom bu nekkee caga wala bu baaxul wala bu lu mënti doon moom nekk na sa wujju ba pare waaw kon yow accepté ko rek accepté ko ànd ak moom nga xool soo demee ba gisoo lu la doy nga génnaat waaw mais xam naa ne eh, lalla bu nanguloon ak mareem moom xam naa ne sëy seen sey dina neex seen ànd dina neex ñoom ñaar waaw seen ànd dina neex ndax mareem xol bi dafa rafet mareem xol bi dafa rafet wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg rek mareem moom xolam dafa rafet lool macha allah vraiment kontaan nañ si moom trop waaw li mu jee nii wax dëgg yàlla neex na trop waaw macha allah waaw mi ngi noonu.